C'est Marc Noël Diatta, frère du défunt, qui a donné l'information en premier. Enlevé au mois de janvier dernier à Santiaba Manzac par des individus armés, le jeune Barthélémy Diatta, ASP de son état, est mort. Ses restes ont été découverts mercredi dans la forêt de Santiaba Manzac par des soldats de l'armée nationale en patrouille dans la zone. Barthélémy a été inhumé sur place, nous renseigne notre source. En effet, le jeune ASP né en 1982 s'est rendu à Santiaba Manzac le dimanche 22 janvier dernier pour participer aux travaux de défrichage de son village afin de préparer le retour des populations déplacées du fait du conflit armé en Casamance. Et c'est sur les lieux qu'il a été kidnappé par une bande d'éléments armés supposés appartenir au mouvement des forces démocratiques de Casamance. Un scénario très inhabituel qui a créé un véritable choc dans tout le Casa. ce qui d'ailleurs a amené le roi de Suisse, et certaines organisations à envoyer des émissaires auprès des ravisseurs pour tenter une meilleure afin d'obtenir la libération du jeune Barthélémy Diata. Des missions difficiles, voire même quasi impossibles du fait de manque d'interlocuteurs valables. Marc Noël Diatta di mag ci ndem ci yàlla moo njëkk joxe xibaar bi ginnaaw bu ay nit yu ngànnaayoo ay feteel daal di ko enlever ci weeru janvier bi ñu jënn ca sànc ba Manjak ndaw bi di Barthélemy Diatta wuy ji na boroomam li des ci niiwam la ay soldat yu l'armée nationale daal di gis mercredi bire ca forêt bu sànc ba Manjak Barthélemy Diatta ci place buñ ko fekk lañ ko rob bu ñu sukkandikoo ci sunu source si fàttali ndaw ASP bi lay juddu ci atum 1982 dem na ci dimanche yémo ak ñaar fukki fan ak ñaar weeru janvier bi ñu génn ca ba mansak ngir bokk ci nettoyer seeni village ngir waajal dellu si bu askan wi nga xamante ne ñoo daw làkku depuis ay at ci ginnaaw ndax conflit bi ca Casamance ci bërëb boobee nag la ay nit yu ngànnaayoo ay fetel ñu njort ne ñoom ñooñee ñu ngi bokk ca mouvement des forces démocratiques bu Casamance daal di ko kidnappé di ab scénario bi nga xamante ne doonul lu ñu faral di gis ca biir Kaasa loole sax tax ba askan wi dund ab njàkkare gu rëy lool loolu nag moo indi ki nga xamante ne moo di roi bu Oussouye di Sibylle mbay Diédhiou ak yenn ci ay organisation yebal ay émissaires ci ravisseurs yi ngir tenter am médiation ndax ñu mën a libérer ki nga xamante ne moo di Barthélémy Diatta waaye mu doon ay mission yu métti lool ndax ñi nga xamante ne ñoom la yoon ni gisuñu benn interlocuteur bu vala bi nga xamante ne moom la ñu mën a waxtaanee mbir mi.